tijaan aljuma dem aljanna yàlla lu ko yàlla defal yëpp bi jaari sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam di tàmbale nuyoo bi fi ko suñu soppe ustaaz tàmbale mooy ku baax Ibrahim Haydara dañu wadifa ba noppi def ñaan am ku joxe yi yëngu yi riire yi jibi fu nekk nu ne doonte dafay wëlbatiku dal ci kawam sax moom fàllewul yooyu li mu xintewoo rek mooy liy jëm kanam rek jeex ba noppi lu mu ci dajale yonent bi maamam de alayhi lu mu ci dajale lépp lay versé ci compte suñu Alaaji Maalik la ko hmm? ko lu mu ci dajale ba mu bari yonent bi maamam mais mu versé ko ci compte Cheikh Hadji Malick carte d'invitation yi xoolal ca gannaaw rek at bu jot noonu at bu jot te lu mu dajal woon verse ko Madina mu lew fa doom waaye lu mu ci dajale rek yaawut ñi nga koy verse ci sëjil Hajji Malick ba noppi ormaan lu askanoo ak deret boo xam ne ma ngay daw ca yaramu koo xam ne surtout suñu Xaaji Maalik ba ci station si di fonk leen yëpp la waykat yi doon way suñu Babacar daal tey jamono addu nag la ca biir fàllawul yi fi riir nañ ko laaj la ca bul kër li xaw mala kóot dañ ko daan way suñu Babacar addu nag yi ci biir hmm. fàllawul yi fi riir moom suñu mu ne ko laaj la ca wuute la xew mën a ko waaw macha allah waaw tey mooy hmm, yi yu bëri yu ci biir fàlluwu la moom daal li muy xintewoo rek mooy sat buy dellu kër Seydi Hadji radiyallahu taala anhu ci darajee maamam nag yal na ko ko yàlla fay dañu bokk ko moom ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam damay wax ni te dinaa ko wax ba ñu koy am wala ba ba ñu koy ñàkk am waaye barab bii moom lañ ko rëdd moom Chérif Ibrahima Aïdara barab bii ni mu ko sagale sagal ci képp ku dëkk amoo hmm. waxuma la amoo waaye képp ku dëkk géejawaay hmm. waxuma la géej waaye waaye neen Dakar waxuma la sax Dakar waaye neen Sénégal ni mu sagale barab bii ku fi ñëw le 31 décembre incha allahu taala bajanoog tant benn mbooloo te la waajanoon mën nga luye ay bâche ak i chaise waaye ay nit kenn du luye ñu ñëw seen bopp de hmm? waaye li ci yéeme mooy ñi fi ñëw ñëpp ay qualité la koo ci xool rek muy sang benn werante demu ci koo ci janoon rek sang la te day fees tell waaw loolu du sax ñun ci suñu amoo yi ah waaw alayhi salaatu wassalaam oustaz Mbaye mi ñu xam. na ak i ngërëm Oustaz Mbaye ki nitu piir nekkoon nii ak Pape Chérif ñii ay xaratu benn bakkan Oustaz Mbaye ki Pape Chérif na maamam boo ko toppee ci yonent bi la jëm waa Kaolack njëkkaneen seede ko loolu ma ànd ak Chérif ñi dem fa ak Kabir kan wala Ousmane kan loolu yàlla fekk fa góor bu tedd dëgg di sëñ Adama Kan bu shérif duggee dafa wàcc toog ci suuf ñoo xam fi mu bokk ko sañetumaa toog ci kaw ci suuf rek lay mën a toog ñoo ñoo xam fi mu bokk ñu jóge Kaolack dem Sokone kër Alaaji Amat dem nijaayam maamam kon Alaaji Tijaan dem ma ci ca kaw lal ba toog ñu dugg wàcc ca lal ba ci suuf ñooñu ñoo xam bàyyam ak silsilaan ba ci yonent bi xam bu ñu xam bàyyam moo tax soo ko wóolurante ayu shérif may ko seen doom ñu am ci shérif góor gi seen moom nee na. Mhm. ànd ak yooyu shérif ni du ma shérif laa lu dul ni sëñ Babacar Si ma moo ko waxal boppam ci laaj mhm. la. te nag bu dem Tiwaawan moom booy niru shérif. élèves bi muy yéeg ci escalier yi. Mhm. dafa sëñ Abdou nekkoon ca kaw. sëñ Babacar foofu moo nekkoon néegu. nee na muy jiyee tombé ak sëñ Babacar Si doon wàcc. ak ñi moo àndal. nee na sëñ Babacar def ko nuyu rek ni ko li ngay topp lu wér la dina tëddee sama laa ilaaha illallaah. li ngay topp di ko leer lu lu wér. dina tëddee sama am. nee na su ma ko def ko waxee romb ne daf ko jox loxo wax ko moo tax coow bari na wallaay baree ba bari it hmm. chérif pire wallaay ci lay kon ku yàlla baaxee ku yàlla baaxee subhanahu wa taala baaxee te bañ la nattoo xol bu gàll. ba nga nangul ko lii ci yàlla la bokk. nañ ko ko nangul. Cheikh na Bachir ñu mu def mooy def ko kilifa. xam na ni shérif la. waaw. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ca jamono bi xam na ni shérif la. waaw. waaw. na ko sagal na barzaxul maktum taajul aarifiina sultaanul awliyaa cheikh am ñu naan wàllu la rek ba nar koo wetti doon gi mu doon sëb bi am na. ci lu wér ci lu wér parce que keneen. barakallah ah ma sax keneen cheikh am nañu ko wettili wàllu rek waaw su cheikh moo wax koo ko joxoon kay fii ba ko ñu ko ah man de def naa lan ma waxoon gis naa yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam gis naa it mu uuf cheikh abdul qadir jilani ni sëtam waaye gisuma Cheikh mu ne ko deman nga defaat soo gisee li nga gis te gisoo Cheikh laajal yonent bi ne ko ana Cheikh dana la wax ndax sëtam la wala déet mu dem defaat lañu ko sant te nañ ko ko waxe mu defee ko noonu gisaat yonent bi ma nga ferantula yu uuf Cheikh Abdoul Khadir Jilani radiyallahu mu def la ko góor ga sant mu ne ko yaa rasulallah Cheikh Ahmed Tidiane yi ñu ne sa sët bi ne ko sama sët la mu ne ko àndamu ndax gisuma ko mu ko mu gisoo biir deret di daw jaay moo Cheikh fa mu tuddee maktuum du fi. maktuum moom ko loolu bu toogee ba am ñuy werante naan est-ce que sëtu yonent hmm. Mawlana Cheikh Abul Abbas te bu dul kon nga dellu te amul sëb. yemu ca doon rek di ba yonent waaye bakk yonent di won boppam. wanewu ko ko ci nelaw de. loolu ngeen di jàngale. wanewu ko ko te dul ngeen di gis ko de. jeex ren la ko gis. nelawul. gëmmentuwul sax. caabi sankoon ca mbedd yi doon làqati ko rek seen maamam ca bopp ko mu taxaw mun na ko fali nii la mu rabbi moom la alaaji Cheikh Gassama mu baax ma def ci wala fala ba yoon nañ ni ko jeex ren ayaa bunayya fa inni la mu rabbi ka daa siwaaya ku dul man rek bàyyi loo jàppoon bàyyi ko sa maam maa la yar yaay sama doom yow Cheikh hmm? du du nelaw du leen du leen jaxal ba yónnee ni ko jëfran ayaa bunayya fa inni la murabbi ka daa si waaya loxo ba nga doon yëg mu lay jañ ci ginnaaw ngay dem ba ca xadara ba nga xam ne kenn dootu fàggatu ku dul yow loxo boobu la doon puus na la woon <laughs> loxo boobu man mii sama am la woon moo tax Cheikh Gassama dugal ko jooy ba am ñu ma ko tëjee seen gémmiñ na ñu ko kon yow Cheikh comme yëpp dañu na ci yow kon làmb ji liy tëgg ca Fass di seet kuy sëtal ku dul hmm. ak kuy léeg kuy laa hmm. yow làmb ji taxaw koy tëgg booyee boo bañ a wàll ca lam ni waxas ndax yow kenn dëggal yow shérif nga doo maas làmb jooja nag hmm, soxlawul sax nga di ko jege ndax boo demee daal te boo demul sëbal daal laa ilaaha illallaah ay kay di cheikh boo demee hmm, yaay daal hmm, boo demul sëbëree daal daal di attirer attention la ni sangalaan nga fas xam nga sangalaan ci baatu wolof mooy la mooy champion international moom la wolof di wax sangalaan waaw ndax nga dama ne sangalaan nga fas bépp mbër mu koy raas nag ab sagam dana sàggee ko ci lu dul jaas ah. bépp mbër mu koy raas. ab sagam dana sàggee ci lu jaas. tey indi na. Hmm. ni Cheikh nekk Chérif Cheikh samay dafa kenn xamul sa tolloo. kenn xamul ko sa maam ak yàlla mi la bind. ngir tuuti bi nga jur. لا لوجليدا مسلو هاشم عبد مناف مام حسين بعدنا كون جالل الشيخ دوغول دوغول باجي loolu la waaw. waaw. est-ce que monsieur formation la bu doon jot mu ni cheikh ngay topp maamam ba ci yonent bi ba ci àddina kon bu dul shérif shérif amul du shérif shérif amul li yàlla am ci xéewale ki mbay yi ba mu ko xëppee yonente ko yonente bi cheikh la ko xëpp ku am cheikh la xëpp am cheikh la ëpp xëpp radiyallahu taala anhu moom loosu gaaya hmm. ñëpp la cheikh teg ay tëggoo gars yi mooy ponkal yi yu mag yi. loosu gaa yi ñëpp la Cheikh tëdd ko ñu ko bañ. ñu ngi xuy. kay da ngay nangu rek tàkk leer boo bañee doo ñu xuy. loosu gaa yi ñëpp la Cheikh tëdd ko ku bañ du ñu xuy. moom ba muy wax cheikh la mu koy wax ci falaar budda ba mu ëgsee ci cheikh lu mu ko waxati déedéet bi moom waxuma boobu sax ilahi bi qutbil aarifina ilahi bi qutbil aarifina imamina suñu cheikh bu doy waar la dina wax xam nga aarifoona billahi yi ñi nga xam ne ñoo xam yàlla maanaam yàlla leen nàmpal ci boppam ponkal ya yu mag yaa mag yàlla nàmpal leen ci boppam ba la ñu xam ci yàlla subhanahu wa taala fees leen ñooña la Seydil Hadji Malick ni cheikh ay seen imam ci seen sang sëriñ cheikh ne na bu dul woon dëgg enrifa ni sa toog la ilaha illallah rek ñu ku dégg wax ji ndekete xam ni Maodo ca la bokk. Mm-hmm. ilaahi bi xutbil aarifiina. Mm-hmm. imaamina. kon kay ca la bokk. <laughs> moo ngi ci biir dafa xam la mu wax. oh. ilaahi bi xutbil aarifiina imaamina. ci yéen laa bokk. Aliou <laughs> Badara. moo lay wan ni Maodo nee na moo lay wan ni moom it ca la bokk ndax day demee ni xam naa leen ci yéen laa bokk waaye ñun kii mooy sunu patron mooy Cheikh Mari radiyallahu taala anhu kon taalibe Tijaan boo gis nag boo ko gisee ak boo ko gisul feek ñu ngi respecté laazimam yi lawaazim yi suba ak ngoon ak wadifaam ak mm. afrol jumaa bi ñu jóge mm. boo ko gisee boo ko gisul sa jëf yi luñ ci bind Muhammadun Rasulullah fi leen ko bind fi la ñuy malaaka yi di xàmme fi la ñuy malaaka yi enfant bi fan la ko yàlla tuuram boo duggee ci bànneex

xotti warmay diine bul tilimal dam buggum shari'a loolu xewul ci tiijaan lii neex na kat ne neex na de jëf gi neex na de Cheikh Barzaqul Maktoum Tajul Arifin Sultan al Awliya ah. gis nga ponkal yooyu ñoo ko xam. ponkal yooyu ñoo ko xam est-ce que est-ce que moom sax. dañuy baax a taw kawe kër gi yëpp est-ce que sax moom xam na ko moom Cheikh. ndax yàlla ak maamam la ñu wax ni ñoo ko xam. allahu akbar su ko defee la sëriñ Cheikh waxoon daf noo war falam yabqa illa an nuqaabila shukri hmm? moo nu war ndax dafa woy sëñ Babacar si ni rama sànni na moom sëñ Babacar xeet ba mu yoroon daal sànni na ko ba mu ko sànnee mooyul fa asaaba janna asayda rabwa kulla isaabatin bépp jam desalu ca dara kon ñi yàlla ñun ñi yàlla toogoon muy sunu sëriñ falam yabqa lu ñu desee lu dul illa an nuqaabila bi shukr lu dul di sant yàlla ba tee rek imam waaw loolu nga wax léegi ndax Cheikh xam na boppam waaw ci 4 millions bi sunu ñaari ustaas lañ ci doon yore kii ni ko Cheikh dañu bind di Cheikh kenn xamu ko kii ni ko ankay am na lu mu wax boppam lu ñu xam ñoom ñaar ci di ci werante Cheikh kenn xamu ko waaye li nga wax ni kenn xamu hmm. moom sax xamul boppam la ko kookoo xanaa waaw xam nga xam nga loolu xam nga kañ lay leer waaw loolu ci kanam mu maam bon jaar Chérif salaamaaleykum waaw yaa